أين رحمتي الحمد لله جزيل نعمتي جرين جيف مبوكي تتان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Euh, ñu ngi fi tey Touba benn fan ci weeru avril ànd ak Serigne Cheikh yu Mbacké mi nga xamante ne Serigne Touba sëriñ Saliou Mbacké moo ko dénkoon euh, ndoxum Touba mi ngir mu jàppale ci état bu Sénégal loolu tax na Serigne Cheikh Aliou wéyal liggéey boobu noonu ba Serigne Sidi Makhtar ñëw jox ko ndigalul jaayante jaayante boobu nag Serigne Cheikh ànd tey ji ak mboole ñu jaayante ci maaw ramati fas yéene saytu ndoxum Touba mi ba mu law saawaan ci biir dëkk bi di Touba. sëriñ Cheikh yu Mbacke nag bi nu essayé jël na kàddu gi ba ñu noppee nag sëriñ Cheikh Thioro tontu na ko ci kàddu sëriñ Sidi Makhtar Mbacke xalif général de mbokk yi seetaan équipe bu Maaw Rahmati fa yéene àndandoo ak sëriñ Cheikh yu Mbacke teew ci kanam sang bu tedd bi sëriñ Sidi Makhtar Mbacke ngir fukki at ak booba léegi ñu jox ko liggéeyub maaw rahmati Serigne Cheikh Aliou Mbacke séq ci jéego yu am solo yoo xamante ne képp koo xamante ne yaa ngi Touba mbaa ngi Sénégal seede nga liggéey bu am solo bi nga xam ne def na ko wante nag loolu lépp ñu fas yéene yeesalaat seen pas-pas ak ci Serigne Sidi Makhtar Mbacke xalif général des mourides bi nga xamante ne moo ko newoon jaayante ak Serigne Touba jaayante na ci ànd ko ak ñu fas yéene jaayante jëm ca kanam incha allah mbokk yi ñu fas yéene ànd ak Serigne Cheikh Aliou seen mbokk mbokk mbokk yi moo Fall Mbaye fas yéene ci ànd ak yéen jërë ngeen jëf mbokk yi الخروج ما هي عين رحمته وعلى آله وصحبه وخدمه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين bi euh, di sunu yaakaar di Cheikhul Khadim sëriñ Sidi Mokhtar ñoo ngi ñëw di leen ziar waa maa u rahmati ak ñiy jàppale ci ndoxum Tuubaa mépp ñoo ñëwoon tey fu ne nit ñu lay ziar Euh, di la xamal ne euh, ñoo ngi topp sa ndigal gis nañ ne yan bi ñu yan sunu boroom may na la nga téeñal ñu fu ñu toll rek yaa ngi ñuy téeñal loolee nag di cant goo xam ne moo nu indi tey jii ñu war laa te ngay Serigne Touba te mat ko sëkk sunu xarit sunu xel di dem ci la sëriñ Touba waxoon ne shuhuri wa ayaami xadan li shawahidun bi kawni ya abdullahi wa in wa huwa shahiru ستوري في دارين مدحي محمدا بنظم ونثر وهو نعم ستور بذور كتاب الله وسنة التي بها أحتمي عما نهاه بذور قصوري خلت والأهل عني تفرقت لمدحي الذي عنه المديح قصير غرور الورى غرز سار بكيده وظنوا ظنونا وظنون غرور أه نقسنا li Serigne Touba waxoon ne ay weeram ak i bisam ñu ngi koy seede gis nañ ne itam li ngay liggéeyal Serigne tubaa mi ngi lay seede ci àddina bu baax a baax te yàlla nga fi yàgg ñu ànd ko ak yow ba li nga liggéey yéene Serigne Touba sa lépp danga nga koo jox Serigne Touba lenn loo dese amul lu dul sëriñ tubaa te mat na bu baax a baax a baax kon euh, ñi nga xam ne ñoo di Mbàkke Touba yi di ay chauffeur biñ jégee sa ndigal li nga ma sant ci ma jaayante ak Serigne Touba ci ndox mi maanaam jaayante ak yow ci ndox mi sofooru euh, Mbàkke Touba yooyu jàpp nañ ci bu baax a baax waa marché Ocass di marché am marchand ambulant yi ak waa marché ba ñu ngi ci jàpp bu baax kuréelu jaayante yi nga xam ne daam ja ak soxna Astu Mbàkke moom sëñ Abdoulahi borom dër bi mi ngi ànd ak soxna ami moom Serigne Chouaib bu Mbàkke Serigne am soxna ami sila moom laa àndal nii ci ziar bi moom itam ñu ngi ci jàpp bu baax a baax chef de village itam su lay bajaana ngi fi teewal leen ak maawo sàll sa moom moom itam ñu ngi ñu ngi ciy jàpp bu baax a baax plombier yi ñi nga xam ne ñooy yi fu ñu gis loo xam ne na naa yàqu ñu ngi koy defar ñoom it jàmbaar lañ lool lool lool lool nga ñaanal leen waa hydraulique gi nga xam ne ñoom la ñuy jàppale itam ndax na nga ko bëggee woon Serigne saali bëggee woon ko ni moo di la Serigne tubaa santaane woon liggéey ak jaamu yàlla te lépp lu mën a doon xam nañ ne ndimbal da ca fekk loxol borom kon alhamdulilah loolu nga santaane waa hydraulique kon ñoom it ñëw nañu ndax ñoom lañ ciy jàppale boroom sareet yi nga xam ne itam fu fi sareet nekk ci dëkk bi wax dëgg yàlla ña ngi cay jàpp guddi ak bëccëg daanaka mën na maa wax ne kenn mënu ci liggéey bi te loolu lépp sa ndigal rek a tax personnel ñi nga xam ne nag ñooy liggéey foofa ca Maaw Rahmati guddi ak bëccëg ña nga fa amuñu guddi amuñu bëccëg waxtu wu ne fu bën bën am ña nga fa ak waxtu wu mën a doon rek ña nga ca sa liggéey bi nga xam ne euh, yaa ko santaane kon gis nañ ne sa loxo mosu cee jóg guddi mosu cee jóg bëccëg benn yoon bu mu ci mës a jóg amul wax dëgg yàlla waxtu wu ne yaa ngi nuy gaaral diñ ci soññ te soññ bi da nga cee jiitu di ci tabal loo xam ne waxtu wure yaa ngi koy joxe ngir euh, waa Touba sa yërmale ni nga yéenee lislaam ji nekk benn noonu nga yéene irham jamel wala joojee Serigne Touba waxoon dafa mel ne dañ koo def ci sa jëmbu ji ba loolu tax na ñu ciy sant bu baax Euh, loolu niru woon jafe-jafe itam ca amoon te nga xam ne am na machine yi segg ndox mi am ku ko ku koo xam ne dafa wax ne dañ koo ameel ña ko ameel ñoo bindoon lii nangu nañ ñoo ko ko ameel loola nga jël lépp ngir bëgg lu baax ngir sa bëgg Sëriñ Tuubaa nga nga fay loola te loola bindoon nañ ko ba fay ñoom benn ñetti fukki million de sëriñ bi fay bërki démb ci mbir moomu amoon loolu wax dëgg yàlla Sëriñ Tuubaa gis na ba noppi waaye nga bàyyi lépp yow sëñ Tuubaa jaral la nga fay loola loola defe naa ne mooy li nga xam ne euh, bokk na ci lu jafe loo xam ne def nga ko kon ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax di la xamal ne sëñ Diagne Gadiaga démb rek indi na fa ay tuyau yu bare bari moom it ñu ngi koy jot di suñu cant ak képp koo xam ne jàpp nga ci maawu euh, dëkk bi nag am na ci ñoo xam ne xëy na ànduñu ci yoon wi waaye seen xol sëñ Tuubaa ca nekk te fa ñu làqu yàlla lañ def seere ca la ñuy def te ña ngay jëf di ci jëf di ci wax di ci def nangu ñu ko sante woon kon yalla yalla guddal saw fan lool euh, fas nañu yéene itam euh, bi ñu ko sëñ wu joxee mi ngi nekkoon euh, ci le 27 mai ci ci 2006 booba lañ ko joxoon ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci 2006 war naa mat fukki at ñu itam yow it nga yeesalaat ndigal li Saliou Mbacke sa xarit ba sa wëlëre wa te nu xamoon sa digg ak moom noo ngi ñaan suñu borom nga nga dund ba fukki at yooyu ñu sukkaat sa kanam di di di di ko di ko màggal ne weer wii kat nga nu joxoon muy ñaar fukki fan ak benn ci février ci 2021 yàlla nañ ko yàlla may ndax xam nañ ne Serigne Touba nga fi nekkal sallallahu alayhi wa sallam nga fi nekkal jullit yëpp nga fi nekkal nun nag yan nga nu waaye yaa nu téeñal kon ñu ngi ñaan yàlla guddal soo fan bi ci darajey Cheikh Mamadou Lamine Baara ci darajey Cheikh Mamadou Moustapha ci darajey kilifa yu fi tedd yi fi jaar yëpp doomi Serigne Touba yi nga xam ne kenn ku ne ba ci yow mi boo fi ñëwee Serigne Touba mooy roofu ci yow di dox di wax di jëf kon yàlla nga fi yàgg ñu ngi lay sant baax di la gërëm jërë gen jëf. wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Serigne Cheikh Alioune Serigne baa ngi lay nuyu yàgg mbooloo mi nga àndal yëpp. te ñëpp di ànd ci ndigalu sëriñ bi di yëngutu ànd ak yow ci maa u rahma ñi fi teew ñëpp te ñu ràññi ci ñi nga tudd muy soxna Ami Silla mu sëñ Chouaïbou soxna Assou Mbacke suñu borom dër bi ak waa marché ocas ak chauffeur yi ak ñuy jaayante ak mbàkke mbàkke yi nga xam ne ñoo ànd yow ci liggéey bi mu ngi leen di siyaar di leen sant te di leen gërëm di leen ñaanal ndax ni nga ko waxee noonu bi yàlla dogalee muy jëwriñu Sëriñ Tuubaa dalaa woo ba nga ñëw mu ne la dama bëgg nga jaayante jaayante nag du lu yomb waaye jaayante googu mu la waxoon def nga ko ba moo tax tey li ci am ci ay nati natija yépp am ci kon mi ngi la ci sant bu baax di la gërëm di la ñaanal di la wax li nga dalal sa xel bu baax ndax Serigne Touba moom ku muy liggéeyloo moo lay téeñal moo lay jox jumtukaay yi nga koy liggéeyal kon mii la ci sant bu baax di sàkku it nga santal ko mbooleem ko xam ni dugal na loxoom ci maa u ma ak ku mën di doon ak fu mu bàyyi ko lépp agsi na ci moom waaye ku ci dugal sa loxo itam nga dalal sa xel bu baax te sant yàlla te xam ni suñu borom boole na la ci ñaanuk sëriñ bu nangu ba muy wax ci dëkk bi wa maskani sallim minal fujaari li wam nun ala ahli bi maa jaar jaari loole ba mu koy wax di ñaan ndox mi Touba kon bu la sëriñ bi joxee tawfeex dimbalee la mu fab ko teg ko sa loxo nga koy liggéey ku ànd yow ci liggéey bi war naa sant yàlla te xam ne ci ñaanu sëriñ bi nangu la nekk koo lay sant bu baax di la gërëm di sàkkuwaat ñëpp itam ku ci mën a dugal sa loxo nga dugalaat sa loxo te xam ne ab liggéeyam la yéen ñi nga xam dañoo ànd ak di ngeen ànd ak sëriñ Cheikh Aliou ci liggéey bi itam sëriñ baa leen sant bu baax di leen gërëm ndax fu ci waaye taxaw rek jëmmam ji ma fa waroon a taxaw kon fu ci waaye taxaw ak loo cay def jëmmam nga ca woote wootoo comme yi sant wax di leen gërëm di ñaan ngi dajateen tawfeex sëriñ bi maanaam mooy euh, unité yi ñu fi indi woon maanaam unité yi ñu fi indi woon tam war a segg ndox mi te amoon ay jafe-jafe ci diggante hydraulique ak maa u rahma te ñëpp déggoon ko sëriñ bi loolee réglé na ko ndax fab na ko juróom-ñett fukki million fay ko ca ba léegi nag sant bu baax nag mboolem ji nga xam ne jàpp nañ ci liggéey bi ci wàllu caméra bi Serigne Khadim Ndiaye Serigne Atine Diop euh, soxna Jox Diagne soxna May Muna Touré waaye ci wàllu leer tamit seen mbokk mbokk mbokk yi Mor Fall Mbaye àndoon ci ak yéen jële ngeen jëf mbokk yi wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu